préparation ay jeux surtout préparation athlète pour dem jongante yi du ci ñetti weer du ci ñenti weer yenn espagne ñi fi tok yëpp xam ngeen loolu non mais nak fexé nañu malgré le contexte de rareté de ressources malgré le fait que buñu dikké crédit yi nga xamanté mom lañu la lool pour mu couvrir l'ensemble des compétitions internationales pour toute l'année 2024 fekk nañu danaka ñu daal di koy consommer yépp je nañu man rendre compte les plus hautes autorités de ce pays moom le chef du gouvernement M. Ousmane Sonko ci ndigalam daal dinay joxe instruction mais le ministre des finances et du budget na fait ba xool Nous muy accompagner les athlètes et les autres sportifs pour le reste de l'année mu nekk tension budgétaire bu où il fallait des arbitrages comme nous ko que le président de la NPS, Sénégal depuis 1964 nous ngi participer ci les Jeux olympiques Dans nag xëj na peut-être participation bi du ça dépend des éditions parce que y na yenn participation il faut xoolee ci archives yi yéen a ma ko xam ay sur invitation la athlètes yi mais il mais a yàlla dogal na athlètes du bëri quand même benn invi invité la ñu am su ma ci